di ñu woddloo di ñu sàngaloo ak soli carax bàyyi parfum ak watu loolu riyaada la riyaada buy delloo an nafs ila tabiati al ula buy delloo bakkan ci ni meloon li dox ci diggante bi yépp ginnaaw gi la waaye bi nit juddoo ni meloon ko armal ci foofu ngay dellu sunu directeur ba woon benn baas jaañ yal na ko yàlla yërëm dañ daan toog mu ne ma nga defe ne dof yi ak man ku ci nit ma ne ko yow lañu tudde nit tudde dof yi dof mu ne ma mukk man mii maa dof nit yi ñoo nite dof yi ñoo nite ma ne ko lu xew mu ne ma ñoom niñ juddoo woon <laughs> naturellement nun lañu ñu mel ne dumm def yaramu nen mu ne man mi wéra nag maa fi jéem a solu <laughs> kenn mës koo gisee suñu waxtaan wu maag moom day ndeysaan benn baas waaw yàlla na ko yàlla yërëm waaye nit tabiatum fi ne col gi moo yóbbu nit ñi ci fenn fi nga gis ci dëkk bi ñoo xam ne bu ñu nekkee ci mbooloo ci xew la leen yitteel mooy colug nit ñi li nit ñi sol ku ci nekk dañ jéem a xam li nga sol ak yooyu col gi di la yëkk ci rek ba ba nga weesu sa sa tabia mel neneen nga ñëw aj si makk mu bëgg laa delloo si waaw mu bëgg laa delloo si sumbiloo la sa yére yi wodd loola ak ni woddu jafe ab sénégalais woddu daf ko jafe waaw tabarkalla Abdourahman Faye lu na la ci daj pour jàngale ko <laughs> waaye rek mu tëticc waaye dañuy nekk fii léegi mbokk yi war a yar suñ bakkan yi delloo ko ila tabiati al ula war koo yëgal ni lii azka arwaxan wa at ara quluba téléphone yu ñëw daal di koy tàmbalee yàq kenn ku ne boo demee yóbbu sa téléphone yóbbu ay pat waaw yóbbu ay phone waaw joxe ñu lay foto ngay photo groupe di foto ba far fàtte li nga doon def di san sa yaram daw nga xam ne nit ñi léeg-léeg gis fi ñoo xam ne yëguñu sax li ñuy def nga xam ne foofu rongañ daawoor na tuuru soo fi dem say xalaat sori ngay xalaat lii nga sol muy lu xonq lu weex ñaari weex yi te yaa ko solal sa bopp bés a ngi ñëw mbooloo ñoo la koy solal kere bi Adja Zeynabu Fall ndeysaan sunu jarbaat ba di jóge senegaal di aji Makka ila baytilaayil xaram ndeysaan bañ ñëwee biir Ali moo solal walla ba ñëwee jóge ca ca dal ya moo solal boppam demal boppam biir ali ndeysaan allahu armalam yooya moom la demee makka dem arafa dellu si dem hôpital ànd ak armalam yooyee moom lañ ko booleel keroog suturaale ko ko sànge ko ko yóbbu ko caaro yi mu tëdd dinu nu xaar loolu ku ne war na koy xalaat diggante bi dara waru fee kon armal du rek niñ ko jàppe weesu na loolu de philosophie yaa ngi noonu bokk na ca loolu riyaadu nafs riyaadu nafs la alal mashaqa wa ihtimaalil mooy tàggat sa bakkan bi ci coono waaye it nag nangoo nangoo muñ benke ñenke yiñ lay teg bu nogay aji woon makka bu armalee ba noppi ku ko xas mu xas la bu armalee ba noppi ku ko joggi mu yuuxu la bu armalee ba noppi ku wéeru ci koom mu ba ma xëla nogay bu armalee ba noppi ku ko woo ci jëw mu wuyu si la allahu akbar yooyu mbokk yi lu am solo la ci wàllu ci wàllu aj makka ci wàllu armal waaw ci wàllu armal loolu moo tax ñépp niroo ci bis boobu ñépp niroo ci bis boobu waaw alibaasul muwahhad benn tëni wala tëni unique gis nga tëni unique nim amee njariñ ci euh, li ñu tuddee tey ay internat gis nga tëni unique nim amee solo ci école gis nga ni mu amee solo fële ca daqaar Bango ci soldaar yi gendarme yi alkaati yi gis nga seen tën yi koo ci xool rek daal di xam ne kii ci koor sàngam la bokk waaw waaw boo xoolee gendarme walla nga xool douanier yi wala alkaati yi def na nun la wala wala wala koo ci xool mu sëltani rek nga xam ne kii ci ñoom diw la bokk waaw lu am solo la moo tax yére boobu alxaniyu wal faqiir ñoo koy bokk sol alxaniyu mooy ki jeexalu dara ci dëkk bi alfaqiiru mooy ki yoru dara ñoom ñaar ñépp ñu ànd ci aj ga kera bañ fa àndee ñoog suñu wajur wa alaaji njaga njaay ci njari tuba njaay ndeysaan ñuy dox safaak marwa ñu te safaak muhammad ali boxeur waaw mu ne ko bàyyi njaga xam nga kii mu ne ma déedéet ma ne ko kii dañ ne àdduna si jamono moo ci dàq box moo nekk nii ndeysaan allahu akbar bu ñu agsee ca àll alamay ni bu ñu ñukkee mu ñukk bu ñu doxee ndànk mu dox ndànk mbokk yi koo gën a yaakaar ci àdduna si ak nu mën a mel bu demee foofu noonu rekk lay def woor du sàngu rek waaw ruuxam di gën a jege yàlla waaye mu ne buñ moytuwul téléphone yeeg photo yeek ñoom seen yooyu mën nga dem ba safa marwa yaa ngay fotowu armal yaa ngay fotowu tawaaf yaa ngay fotowu rekk tabarkàlla yàlla nun yàlla yërëm al mbokk yi dafa am leneen lu ëmb mooy assalaam te mooy jàmm waaw armal armal ndekete dafa am lu ëmb te mooy jàmm moo tax ñi jàpp ne jullit yi du ñu niti jàmm ñi ngi tooñ jullit yi ñi ngi tooñ armal ñi ngi tooñ lislaam jàmm ci boppam ñu ngi koy tooñ waaw réew mi am na jàmm yàlla yàlla yokk jàmm ji waaw sunu mbokk ma ndeysaan waaw góor gi ci yoof waaw boo armalee jàmm ja nga xam ni moom moo ne ci yow ca tàmbalee fa nga nekk yoratoo benn ngànnaay yoroo poos bu koy def waaw yoroo ngànnaay yoroo poos bu koy def waaw waaw yoroo jaasi yoroo fetal yoroo xeej yoroo yet mukk loxoy na nga def ñu ne lu tax nga daal di jàkkaarloog alkaaba ne ko ne allahuma anta salaam jàmm jàngoo wa minka salaam jàmm jàngook hayyina rabbana jàmm jàngook muy yéen waaw waaw jàmm jàngoog allahumma anta salaam wa minka salaam hayyina bi salaam waaw aw rabbuna bi salaam jàmm jàngook waaw nga ne yàlla yow yaay jàmm anta salaamu yow yaay jàmm wa minka salaamu ci yow la jàmm di jóge kon yàlla na ñu ñu dundal li feeg ñu ngi dund bis salaam ci jàmm mu yéen kii fu muy defee ay fenn xanaa fenn xanaa waaye daa am bunt ba bu ubbi ko ku porox ndollu jaar ca bu noppee jiiñ ko jullit yi waaw ah, am bunt ba su ubbee ko ku porox ndollu ca soo noppee jiiñ ko jullit yi waaw daa di koy jiiñ mel ni mbooloo mbooloo ma jiiñ ko jullit yi te nag kuy wax ci Euh, làmmiñu nit dangay waxtaan ak ñoom bañ jox la seen kàddu boo defee ñu xam ne yaa ko def porte parole ca la bokk nga daal ne allahumma zid haazal bayta tasrifan wa takriman wa mahaba wa zid man xajjahu aw ictamara takriman wa tasrifa xoolal sa ñaan gu réy googu rek yàlla maa ngi lay ñaan néeg bii yal na ko dolli teraanga yal na ko dolli yiw waaye yal na ko dolli euh, yal na ko dolli dayoo ku ko ku ko aj mbaamu umra fi it na ko boole ca yooya nga dolli ko teraanga dolli ko yiw mbokk yi loolu ci wàllu aj ñaan googu day tegtale ne lislaam moom jubluwaayam yépp mooy jàmm pénc mi am jàmm ñu ñu jëmbat jàmm ci ruux yi waaw lépp lu ñu indi ak bañante luy indi ak soxorante ñu daldi dàq yépp waaw ñépp jublu daldi dund nekk ay mbokk mu taxaa bii ne bëggante moo tax sunu borom dinu wax lu mel noonu bu nu àccee alxajju ashuru maalumaat dégg ñu ne ko waaw fa man farada fiihin alxajj ku fas yéenee aji falaa rafasa waaw bul wax wax ju ñaaw sa digganteeg ujaaj yi waaw bul wax wax ju ñaaw sa digganteeg ujaaj rawatina yo cay jigéen wala fusuux bul def ak caay-caay sa digganteeg jullit yi wala jidaal bul werante sa digganteek jullit yi fil xaj ca aj ga boo ñibbee tàmm ko hmm? waaw waaw nga nekk ci aj ga doo weranteeg kenn doo yuuxoonteeg kenn doo tooñ kenn doo jël dencub kenn doo jël wàllu kenn waaw doo weranteeg kenn laa rafata wala fusuuqa wala jidaal fil xaj ñu nag suñ aj màkk gi ren buñ moytuwul pétrole bi yàq ko gaz bi suñ aj màkk ak ren jii buñ moytuwul pétrole bi yàq ko gaz bi ñu aj màkk xeeñ xunnu pétrole aj màkk waaw xeeñ xunnu gaz te ñaar yooyu <laughs> bu nu yàlla ne falaa rafasa wala fusuq wala jidaal fil xaj buñ ko moytuwul yàlla xam na ne Madina la ñu tàmbalee gaz bi ak pétrole bi buñ demee xubaa gaz ba topp ñu buñ demee xibla tey ni euh, pétrole ba toppuñu waaw waaw noonu la ñu toppee rek bu ñu demee Uhud pétrole ba topp mu xeeñ xunn pétrole bu ñu fa jógee armal naan labbayka xeeñ xunn petrol bu ñu àggee di tawaaf xeeñ pétrole bu ñu dox safa ak marwa mbokk yi nanu bàyyi xel bu baax laaye sunu boroom ji fala rafasa wala fusuuxa wala jidaala fil xajj laa jidaala fil xajj waaw nu nu bàyyi tem bi fii ba dil si waaw bàyyi tem bi fii ba dil si lu ko mooy pétrole yàq sunug aj ren gaz bi yàq sunug aj ren te tànq gu ñu róota gu ñu jaaye gu waaw nan ko bàyyi fii buñ delsee buñ delsee eh, buñ ci buñ ko mënta bàyyi ñu nekkaat ca <laughs> ñu nekkaat ca waaw waaye daal tabarkal la am na solo de waaw am na solo lool at mu jot rek bu ñuy dem màkk rek yóbbu dara ren lii déwén lii ginnaaw déwén lii rekk tabarkal la ëpp naa def bu ñu dee makka nanu nanu moytu ñett yooyu rafas ak fusuux ak jidaal rafas fusuux jidaal ñu moytu leen léegi nag nu ñuy def mu ne wa ma tafalu min xayrin yaalamuhu llah def ci sama gan jël ah, foofu lay fi nekk wa ma lépp lu ngeen def min xayrin ci lu baax te jàppalee ma ko ci gan ñi waaw yaalamuhu llah yëg naa ko yàlla mu ne yëg na ko min xayri nag mooy yàlla dafa daf ñoo xeebalu dara wa ma tafalu miin min li muy tekki mooy yàlla xeebalul kenn dara jëndub singom sax jox ko ujaaj yàlla nee na xeebu ko yàlla nee na xeebu ko waaw wa ma tafalu xayrin yalamuhu llah waaw moo tax am na ujaaj yoo xam ne loolu la ñuy xënte waaw xam naa léeg-léeg ñu waxtaan waxtaanu fajar suñu xel dem ci da Njaay ba Badaloo wala soxna awa cubb <laughs> waaw ay dajaay na ko yàlla yërëm des na màkk ca événement ba ndeysaan deux quinze waaw tet tet bu ma ñëwee mu ne ma jàllaa bi yaa ngi nii moom laay jaay waaw tànnal benn ginnaaw naar yi duñ jaay ba am tubéy nga tànn bu am tubéy ndeysaan daal di cay teg yam cay teg yàlla xam na ko soxna wacc bu bu ñëwee def naan ma lan nga bëgg ren <laughs> man ne dara mu ni ma déet lu mënta nekk ndeysaan wa ma taf'alu min xayrin ya'lamu la damay misaal mooy ku aji màkka yàlla nee na na ko ñëpp jàppale ci ganam ñi am na gan ñoo xam ne fa ñuy dëkk walla wàllu añ walla wàllu reer wala wàllu ndékki walla wala walla ndax gan tuuma ranke daf koy yomb léeg-léeg ñu dem fa nga gis ko xaalisam réer te tegu ko ci ay tappale du wóor na ne dafa réer wóor na ne dafa réer bu fekkee da ngeen ànd ak mbooloo bu ko ku nekk dompalee mu am lu tal ni lam réer li baalu ko jege ndax foofa réer li fa daay yomb rawatina ñi nga xam ne lañ fa dem bëriwut walla ren mooy seen aj gu njëkk waaw kon ku armal daawara bàyyi xel yooyu nga xam ne moom laa doon junj léegi laa yuqaasimu ahada doo xula kenn moo tax ma naan jigéen ñi seen pànk gi nan ko bàyyi aéroport bu jas waaw doonte sax wuru foon àgg nag danga koy bàyyi ci quartier bi nga dëkk waaye pànk ànd ak moom ba aéroport da jas nga ànd ak moom yëg ci avion ba ànd ak moom wàcc Madina ak yonent bi bëgg bañe woon ko pànk nga ànd ak pànk nga yàgg moom tabarkalla ba dem mag waaye waaye mbokk yi nañ bàyyi loolu mu ngoog euh, moytu wax ju ñaaw wax ju ñaaw saagaat xasteeg yàqub der nu bàyyi jàng bàyyi gi te bàyyi ko bu ñibbisee waaw yi nga xam ne mooy maxsuraat yépp ñu moytu ko te mooy yañ fay tere rawatina yiñ tere ku armal rawatina yiñ tere ku armal yooyu lu am am solo la waaye ba tey maa ngi ci tomb armal démb ak tey incha allah bu ñu dundee ba ëllëg ci lañuy ñuy muy tomb armal lu tax ñuy armal philosophie bi ci nekk walla xikma bi ci nekk lu tax na di ko def ci la nu nekk démb ak tey incha allah bu ñu dundee ba ëllëg tam ñu ñu ñu ñëweel ko ndax mu amal nu njariñ ba bu ñu demee màkk moytu yi nga xam ne day xajamal aj mbaam mu koy yàq jërë ngeen jëf ci ànd beeg si defeem seen rajo ci biir réew mi bitim réew ak seen fi war a yëkkatee jotaay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii tax a yor seeni i